Sénat comme du temps de de Wade wala créer beneen institution euh, pour yaxanal parce que nee na il faut lu ñu mënti créer aussi ñu paramètre ko ak les ressources du pays yi nga xam ne moo leen obligé ñoom ñu dem ba ne nañuy yaxanal ay imprimante machine à café et cetera et cetera surtout ça euh, yaxanal boobu noonu dafa am solo xam nga euh, moom jàpp na ne ñi mu ko seqal ay républicain lañ kon donc yaakaaroon na ci ñooñu ñu dissoudre ko euh, assemblée. Mhm. Euh, monsieur le ministre dafa mel ni moom xamul gaay mi torop républicain wuñ de. Euh, man foogoon naa ne nag lañ ko voté ndax jàppoon naa ne muus nañ pas républicain nañ mais foogoon naa ne muus nañ mais ndekete ils ne sont pas intelligents dans l' exacte mesure où ñoom bu doon seeni i camarade de lañ bëgg a téyal seen i emploi président amoon na yeneen astuce pour mën a. bañ a maintenir ces entre guillemets emploi parce que déjà ñoom indemnité de session la ñuy am. Mhm. bu session amul du ñu am indemnité. bloqué nañ seen i compte dàq nañ président yi donc effet wu euh, yaxanal bi am na seulement institution bi moom moo moom moo des man sax bëggoon naa koo laaj. Mhm. parce que am na beneen institution bu des. boo xamante ne euh, jàpp naa ne sax xaw na dugaale tuuti ci département ministériel am muy. Euh, bi euh, madame Innocence Tab Diop euh, waaw au conseil du dialogue social euh, te moom moo yor emploi ak relation ak institution pourquoi boobu ñu bàyyi ko ci parce que boobu it foogoon naa ne bokk na ci yi nga xam ñu war a yóbbaale waroon nañ ko waroon nañ ko ci yóbbaale d'autant plus que même sax dans le ci ci dialogue social boobu noonu problème yi bari na ah waa kin fat seet si nañ la ñeneen ak ñeneen emploi gars yu bari ñuy carte boobu gisuma mu dox torop hmm. gisuma impact bi nga xamante ne am na ko euh, loolu question la boo waroon euh, booy kiiwaale bu jëlee parole mm-hmm. mais actuellement là mm-hmm. man jàpp naa ne institution yëpp dañ koy def selon euh, les calculs politiques mm-hmm. te président bi muy waat daf ne ñu ci prestation serment que day les institutions constitutionnelles quelles sont les institutions constitutionnelles bu dee ku ñëw rek andi say bos ci ni mu noo noo ko noo ko kiiwee conseil économique social environnemental 1960 la woon 1961 1963 lay soog a doon institution constitutionnelle président Senghor mu dem ba 2000 président Wade dindi ko changé waat ko parce que am na alier bu bees euh, feu Mbaye Jacques Diop. oui mu jox ko def ko conseil pour la république voilà CRAES. conseil de la conseil de la république. dawal tuuti dindiwaat ko defaat ko conseil économique et social joxaat ko son militant feu Ousmane Masseck Ndiaye. oui. président Macky Sall ñëwaat dindi. parce que moom bi muy dindi Sénat sax daf ne woon mbënd bi. day soxla kii yooyu taw bi taw bi la ko la ko jiñoon voilà après mu jékki-jékki andiwaat ko. Mhm. pour joxaat ko euh, beneen euh, allié wam candidat ba woon 2019 ne da koy dindi faf moom mu mujj koo jiite. donc ça veut dire que ni institution yooyu noonu casé casé ay alliés politiques kese la seen histoire yëpp seen i taarix yëpp boo hmm. gisee fu ñu ko andee rek allié bu bees moom est-ce jotul ñu ñu def quelque chose boo xam ne day nekk lu durable stabiliser très bien les institutions constitutionnelles bi nga xamante ne dafa bokk ci prestation c'est-à-dire li mu bokk ci prestation serment wu président de la république moo waral mu war koo jox cëru hmm. stabiliser leen d'accord alors le ministre va répondre à votre question après ñu continuer oui euh, moo wax la ni la au conseil du dialogue social de de la république non c'est pas foofu lay ñëwee euh, ndax les institutions de la république ni ko euh, constitution liime mooy le président de la république l'assemblée nationale le gouvernement la défunte non même pas le gouvernement le gouvernement encore mhm. la, la défunte euh, le défunt CSE oui. c'est une institution mais c'est pas constitutionnel de la République sont. quand okay. on dit la c'est pas ne dit bah, pas constitutionnel c'est la constitution qui le dit. c'est la constitution qui dit les institutions. de la République sont mm-hmm. un instant quand on dit les institutions de la République c'est pas institution tout court ndax bu dee wàllum institution rek. même la loi est une institution règle parce que dafa am lu ñuy wax institution corps institution règle. mais il faut ñu dem ci terme yu bi waa c'est la constitution qui dit article 6 les institutions de la république sont mu cité ko leneen lu bokkul ci loolu du institution de la république institution dite de la république bu ñu wax nag institution constitutionnelle ça c'est une interprétation que les gens disent puisque c'est la constitution moo leen lim moo tax ñu ne institution constitutionnelle mais la constitution elle dit les institutions de la république sont mu lim dafa lim euh, le président de la République l'Assemblée nationale le woo Conseil de collectivités territoriales moo taxoon Aminata Mbengue Ndiaye nekk la troisième personnalité de l'État le Conseil économique et social le Conseil économique social et environnemental le gouvernement ba pare mu teg ci les cours et tribunaux moo tax ñu bëri bu ñu wax juróom parce que bële c'est plusieurs les cours et tribunaux ñaata cours moo am ñaata tribunaux wala dañu leen boole. leneen lu dul loolu nekkul institution de la république loo haut conseil du dialogue social may nga ma ma joxe historique parce que man dama dama nekk ci ministère boo xam ne xëy na ñu bëri xamuñu non seulement l'importance mais nu ñu ko plurotariser pour éviter le mot euh, clochardiser j'évite parce que c'est quand même euh, un ministère. Mm-hmm. conseil du dialogue social ñu ngi ko créer daa nekk ci wetu sur la côte du ministère de l'emploi du travail et de la santé des institutions man kooku sama interprétation bopp à partir de l'historique que j'ai vu mhm. Pa Moussa est-ce que xam nga ne boo demee euh, euh, le ministère du travail a le plus petit budget de tous les ministères ah hmm. bu ma xoolee boo jëlee les pays européens les pays dits développés dans l'ordre même protocolaire le ministère du travail ne sort pas des quatre premiers boo demee ku mel ni Espagne il est même érigé en vice-président boo demee te dëkk bu mel ni France du question xëcc euh, le drap sur nous mais je vais vous dire l'historique di ngeen comprendre lu tax lii mm-hmm. bu demee dëkk bu mel ni France tey bu nit ñi di wax euh, le président Macron perd le pouvoir regardez sur les incidents d'où ça vient mm-hmm. fonds retraite oui affaire gilet jaune. Oui. c' est des éléments qui sont extrêmement importants notamment la sécurité sociale ndax presque gafaga réew mi yëpp moo koy jël. Mhm. dañu dem ba am une fiscalité presque dédiée qui fait dérogation au principe de l'unité euh, l'unicité de la caisse. ñu ñëw ci dëkku Afrique yi souvent particulièrement au Sénégal li ma constaté man ma ma qualifié ko de coïncidence troublante mooy généralement c' un ministère qui. n'a presque jamais été confié, a toujours été confié aux alliés de toutes les coalitions. Mhm. Mhm. Donc Betarna, très souvent, euh, mais il doit gérer tous les problèmes parce que c'est le ministère qui est un peu le mur des lamentations. Il doit gérer les mhm. le front social et tout ça. Mais pareil, je vous dis, euh, je n'ose même pas vous dire, c'est public, le budget était, avant qu'on qu rattache la direction de l'emploi, Le budget était de 4 milliards. Presque moins de 5 milliards. Y compris les salaires des agents qui y travaillent. J'en passe. Ce pas une, un plateau où on prenait. Mais les on, défis on doit le dire, monsieur le ministre. J'en passe, c'est oui. important. Historique, Bimoy. Euh, avant même, la direct, l'emploi était rattaché. Mais comme l'emploi commençait à être une source juteuse, les pouvoirs en place ne pouvaient pas laisser aux alliés continuer à gérer une mamelle de, de on a repris, on le confie aux autres ministères qui ont en charge et qui sont membres du parti. Du parti. C'est comme ça que ça se faisait. Ce qui fait que, à un moment donné, vous regardez les ministres qui sont passés, si c'était un peu la, dans la coalition, certes, mmh. mais ils n'étaient pas de la mouvance. Mmh. Et c'est ça, à mon avis, l'explication fondamentale. D'autres anecdotes. on a aujourd'hui beaucoup de structures qui sont comme l'IPRES comme la caisse de sécurité sociale ñu jéem ci wolof. Euh, yu bëri problème sax. yoo xam ne yenn directeurs yi plus puissants que les ministres à l'époque le directeur qui va chez le président qui déjeune qui dîne qui t'appelle toi le ministre xam nga jiitu réew kenn du ko woo. Hmm. c'est le président qui moo lay soxla woo la. oui. un euh, am na ay ministère am na un directeur qui va à l'époque euh, qui t'appelle et le présente pas son beau jour yow mi nga xam ne yaa yor tutelle technique am pour que foog ci réew dafa jaadu fort heureusement moi je dois toucher du bois j'ai des pachas dama am ay njiit yoo xam ne dañ may challenger j'en passe et pour revenir au conseil de co des collectivités territoriales du dialogue, du dialogue social du dialogue excusez-moi au mmh. conseil du dialogue social qui était rattaché qui était rattaché au cabinet du ministre du travail à l'époque et du dialogue social. La surprise, c'est qu'au mois de mars, hmm. je ne sais par quel subterfuge, le ministère n'était pas informé que euh, cette structure a été détachée du ministère et rattachée à la présidence. Mmh. C'était Pour vous dire un peu l'historique. Pardon C'est en quelle année Vous dites au mois de mars. Au mois de mars dernier, vous me quelle année je l'ai découvert quand nous étions partis au 1 mai Et, et dans l'ordonnancement, on a vu dans le protocole que euh, voilà quoi. Donc ça, je le dis, c'est pas du top secret. Mhm. Mais à mon avis, je corrige. Ce n'est pas une institution de la République. da nga koy ci ministère non du dama koy delloowaat man naw ma sañ-sañ boobu dama lay expliquer loo c'est des faits réels mhm. et sans préjugés. donc aujourd'hui ça fait partie des des des des, des il faut pas le classer dans des structures. Mmh. Euh, institution parce que le budget je peux je peux être d'accord même si c'est un franc si on peut bu ñu ko naree sakanal dañ koy sakanal. mais le dialogue social aujourd'hui est une branche. Mmh. qui mm-hmm. est rég de façon régalienne confiée à un corps énarque. de l'administration qui est un corps d'élite comme les inspecteurs mm-hmm. social qui fait des inspecteurs du travail. des auxiliaires de la justice. ok quand je dis auxiliaire de la justice parce que dogal yu ñuy jël tey bu conflit collectif amee mënul dem tribunal euh, wala bokk tey bu benn nit bëggee licencier délégué est obligé de passer et de fair la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. Mhm. bu grève naree am préavis de grève ci inspecteur du travail lañ koy confier. bu conflit amee maanaam liggéeykat yi d'accord ñu ak employé ba war a dem grève kenn du dem tribunal di ko régler ji la loi vous oblige à venir en séance de conciliation chez l'inspecteur du travail PV bu muy jël PV la boo xam ne bu ngeen demee ba d'accord comme ni ma ko defee entre Sabodola ak euh, euh, Sabodola Gold Operation ak seen employé yi dañ koy yóbbu tribunal homologué ko mu nekk décision de justice donc c'est le c'est ça en réalité le dialogue social d' accord dinaa ñëwaat ci affaire dialogue social ak euh, l' emploi